alhamdulilah bisimilah barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah waa As-Samadiyya ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di baalu ñi paax tey baal di ñaan sunu borom mu def ñuy jullit xaqan def ñu ay murit saadiq xiir ñu ci jub te ñu ci ba faaw jàppandalal ñu ngërëmal Serigne Touba def ñu ñuy dëgg-dëgg taalibe Serigne Touba ñu Serigne Touba nangul sunu taalibe te gërëm ko. di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko te dolli ko kàttan ba lim yéenee liggéeyal Serigne Touba mu def ci lu kawe njortam naka noonu mu ngi koy ñaanal Serigne Abdou Samad ak mboolem kilifa yi suñu borom bu dal fanam lool te wéral ko te dolli kattan ak tawfiqam ci liggéeyal Serigne Touba te léppam di gën nga màggi ngërëmal Serigne bi te suñu borom defal na ko ñëpp. ñuy ndokkeel ñëpp nag ci bis bi nu jagleel jagley sëriñ bi ci asawadiya mu tombeek nag ndamul sëriñ bi di ndamul taalibe yeeg jullit ñëpp muy ubbi teg daara ju mag ji nga xam ne daa boole lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci biiram te mu amee ci anam goo xam ne lu jafe la mooy sëñ bi kon léppam ak may la ak pàgguteef la ndax bu dee lu sa amit kenn mësu koo amee ni ko sëriñ bi amee loo xam ne ci sa biiru dëkk la nekk sa alal sa alal rekk moo ci dem sa alal njaboot moo ko defar moo ko taxawee sag njaboot it ñoo koy taxawee te lañ fay jàngale lépp ma mënees naa wax ne sam njàngale la waaw loolu loolu mësunoo gis ku ko amee noonu moo tax sëñ Tuubaa lum am tur wi day mën nga koo dégg faneen waaye boo xoolee ba ca biir xam ne nam ko amee wuute na ko faneen amee ndax moom euh, lu lu ku ne mën a am sëriñ bi seexlu na loola ci boromam te boromam it lam koy tànnal day doon lu wét loo xam ne ku ko gis xam ne lii ak jagle ak may mi ngi ci te la ko jiitu nag mooy pëstéef ak pàggutéef bu rëy kon ndam lu rëy feeñati na sag bu rëy feeñati na jagle gu rëy feeñati na ak may gu rëy feeñati na ndax suñ Tuuba léppam boroomam da ko ko tànnal tànnal ko it la ca gën lu ne la ca gën la ko ci tànnal mu di dëkkam mu di mbindam mu di doomam muy ba ci ay ñoñam ba ci ay ñoñam lépp yàlla da ko koo tànnal te da koo tànnal ca tànneef yi tànneef ya moo tax lum am rek mu dig jagle dig may waaye lu mu am rekk doon loo xam ne ci moom rek moom rek la yam loolu sun borom ak ko defal ci pëstéefam ci pëstéefam ak pàgguteefam lu rafet waaye ci mbaaxu yàlla ak kàttanam ak nammeelam ndam lii nag di daara ji dëgg la daara yi mën naa bari lool université yi naka noonu waaye bu boo xam ne li daje ci lii daje na ci amul fenn mësta am te amul fenn loolu nag tawfiix la loolu nag tawfiix la waaye nag jaare ci koo xam ne muy Cheikh Mamadul Muntaxa moom xojja la aw lay la layu sëriñ bi la ci diine ji ci diine ji kuy tegtale wérug yoon wi la kuy tegtale njubug yoon wi la kuy tegtale sellug yoon wi la waaye kuy wane ne yoon wi te mooy yoonu Sëriñ Tuuba mooy génne nit ñi nga xam ne ñooy doon ay làmp yi leeral àdduna moom doy na ci misaal fii ñu toll àdduna xadd na lool lëndëm na waaye mooy làmp bi nit ñi di niitoo di ci leerloo te loolu umpul kenn ku nekk fii ci réew mi ku bañ ak ku ak ku umpule ku umpule bokk ku bëgg ak ku ku ku nangu ku nanguwul ñëpp xam nañ ne mooy làmp bi leeral lëndëmi réew mi ba nit ñi xam fu ñuy niitoo ak fu ñuy teg seen tànk ak fu ñuy jëm Cheikh Maodo Muntaxa am ndam la ab taar la ab taar la ci yoon wi pàgguteeful Serigne Touba man de dama koy wax ne rek man de benn bët rekk laa la ma sa xool moo tax danaay am ci yow lu ma yéem waaye duma am ci yow lu ma bett mukk dara bettuma ci yow yeesal nga sàmm nga sellal nga doktooru xol yi mbégte mooy baax yi ndamal jullit ñi sangub murit yi sagub murit yi taarub yoon wi fàgguk sëriñ bi rëy yitte lool kawe na ko lool te rafet la ko rafet jikko lool te yaatu ab xol xajoo mbindeef yi ak seeni sikk di wane aw yoon aka leeral di mas maslaa tey jubal bari yërmande lool te dëggu njariñal bëgg sëriñ Touba ak doyloo doy nga ci misaal jiite nga ñëpp ci sa xam-xam sa jikko sa mbaax ak sa masla te ndamoo ndax gisoo dara sëriñ bi rekk nga gis xam nga fi nga jëm xam nga fi nga nu jëme ci sëriñ bi rekk nga jëm te moo lay womat foo jaar yoon la yee nga la doon nelaw dekkil la deewoon ci yoon wi mottali la desoon tànne fi yëpp naw nanu la lii lépp nag jàngat bi dana delluwaat ci sëriñ bi ak sunu koolute ci moom nun murid yi nu gën a dalal sunu xel waaye gën a dëggal sunu yaakaar gën a wéral sunu pas-pas gën a néewal sunuy njàmbat rawatina njàmbati waa jamono ñun lu ci bari war nañ cee mën a mucc ndax jamono dañoo toll ci xalaat ñun nag dañoo toll ci sottal Sëñ Tuubaa weesu na xalaat waa àdduna fi ne ñoo tollu ci rëdd ay plan ak a xalaat lu ñuy mën a jëmalee àdduna kanam lu ñuy mën a dindee yàqu-yàqu yi sëñ bi nag weesu na lool ñun fekku nañ sëñ bi xalaat lépp loolu laa ko mën a tuddee rek ba bind ko ba fàggu ko fàggu it benn benn yi maanaam Sëñ Tuubaa loolu la wuuteeg ñépp fi mu ne faneen fu doon fii bu doon defar ab université wala lu mën a doon la ngay njëkk a xalaat mooy nuñ koy defe ak fuñ koy def ak ñu koy def Sëñ Tuubaa nag lu ne boroomam da koy da day ñaan boroomam lim bëgg fu mu war a am ak ñu ko war a amal moo tax université bi mi ngi doog a jot waaye ba Touba di doog a sos suñ su suñ ko bëggoon a sose nii bu boobaa benn benn yi ko war a taxawal ak xam-xam yi ñu fi war a jàngale dañ koy jéggaani waaye sëñ bi li muy ñaan boroomam la koy doxal lay lay njëkk a am ba loola nekk ba noppi ñaan gi doog a jëmm doog jëm mooy ñii dëkki Touba ak bépp ñaanam bu mën a ñaan rek booy xool ña koy sottal buy am day fekk ña koy sottal ñëpp bàyyi koo ci njabootam doon ak njabootam kon sëñ bi noppi na ci lépp kon nag li am solo mooy ñun àdduna lum jafe-jafe lum metti metti lum tar-tar na xam ne ñun am na fuñ tënku am na fuñ tënku loolu ñu tënku nag nañ ci jéem a dox. nañ ci jéem a dox université bii sëñ bi ubbi pas-pas bi ak liggéey bi mooy li koy jëme kanam kenn ku ne fexe ba kenn bañ la caa ndax faaw dana faaw dana jëm kanam ndax doxoog mbirum sëriñ bi moom nekkul ci nun ci sunu ci sunu ci sunu ci sunu pëstéef wala ci sunu doxin sëñ Tuubaa yàlla noppi na ci mbiram ndax moom fàggu na li war a fàggu lépp waaye nag nun dafa bokk ci sunu ngor dafa bokk it ci sunu njariñ ci sunu tawféex ñu fexe ba kenn bañ ñoo man ci sëriñ bi doxaa nag li ma naan misaal la mooy dafa dégg sëriñ Tuubaa dafa dégg sëriñ bi lool mooy xam li xew maanaam sëriñ Tuubaa bokk na ci li ciy gën a jariñ nit mooy mu sukkandiku ci moom te doyloo ko waaw sukkandiku ci sëriñ bi te doyloo ko lool nag ñu bari gëm nañ ko waaye wóoluwuñ ko loolu ñu bari gëm nañ ne sëñ bi kuñ war a sukkandiku la kuñ war a doy loola ndax lépp a ngi ci moom dëgg la gëm nañ ko nii rek waaye nag amaguñ ci kóolute ndax lan jarbu wuñ ko nattu wuñ ko dëgg dëgg dëgg dëgg sëñ Muntaxa dafa dafa dafa daf koo daf koo daf koo daf koo natt daf koo jarbu ba xam ne sëñ Tuubaa lu doy la mu doy ko moo tax muy feeñ ci ay jëfam misaalam sëñ sëñ sëñ Abdou rek la may jox sëñ Abdou Lahad nga xam ne eh, day mel ne ci kàttanuk sëriñ bi lay doxe loolu mooy boo doyloo sëñ Tuubaa dëgg sukkandiku ci moom ci vitesse su sëriñ bi ngay dox lay sëñ Muntaxaa loolu mooy feeñ ci moom kon nag jamono ju ne ak liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal sëñ Tuubaa tekkuwul ci genn anam du caa gi ne liggéeyal sëñ Tuubaa mooy dem xari mat lu caa gi ne mooy buub du caagi ne mooy root du caagi ne mooy lii jamono june ak la la gën a yàlla ci liggéeyal sëriñ bi te mooy fu ndigal la jëm fu li jëm jamono jii ñu jëm nag day jamono joo xam ne lépp xam-xam a koy doxal waaye nun fekk nañ sëriñ bi fàggul lu lépp kon nag la ëpp solo mooy jëm ci jëm ci fexe ba ñun ñëpp ñu jëm ci xam-xam ni ñu ci sëñ Tuubaa woowe waaye ni ñu ci sëñ Muntaxaa Muntaxaa dimbalee Sëñ Muntaxa dafa dafa taal taalu xam-xam ci xoli muridi mosal leen neexiitu xam-xam mosal leen ko rawatina ci Sëñ Tuubaa nga jaar ko ci yoonu xam-xam yoon la woon woo xam ne ci yoon yi yi ñu yeesalutoon la bokk nga xam ne ñu bari yëguñu woon jaar Sëñ ci yoonu xam-xam xëy na ñu war dañ ko yëgoon rek ci jaar ko ci anam mandite maanaam xaal manditeg manditeg xaal manditeg yo maanaam eh, jaar ko ci geneen anam suñ mun taxaa ñëw yëg ne sëriñ bi eh, ci anamu xam-xam boo ko ci jaaree it da nga xam ne dara mënul ne sëriñ bi te ci anam googu lañ mën a jaayee sëriñ bi lañ mën a wanee sëriñ bi ci àdduna sépp ndax am na ci loo xam ne moom ci nun rek la mën a yem nun rek la mën a yem génne sëriñ bi wane ko dafa am ci anam goo xam ne ci la mën a jaar te loolu ci anamu xam-xam la luñ mën a teg baaraam lay doon luñ mën a xool di ko gis lay doon lu luñ mën a nattu ci am xel di ko xam lay doon ba lee ba mën koo woon ñëpp ba ñëpp mën koo mën koo gis ñépp mën koo xam te Sëriñ Tuubaa ko koo gis xam ko bëgg ko waaw lool loolu nag Sëriñ Muntaxaa sama borom defal na ko ci tawfiq mu yeesal yeesal na yoon wi yeesal boo xam ne feeñ na ci xol yi feeñ na ci xel yi dafa am lu waxoon lu am solo doxaa dafa lu am solo te mooy sëriñ bi ñett yii la dafa ñim fi ñi wàcc ci seen biir dañoo tiit ba rët ngir màggug sëriñ beeg leeram ak darajaam ñi ci des sëñ bi da leen sotti barke bi ñu màndi te ku màndee amatoo àtte bu teg ci ne nag fi mu ne mànditali war naa rees ñu xool sëriñ bi xool lim ñu indil ñu dund ko ñu dund ko jël ko dund ko lool lool loolu nag la loolu nag ci lañ toll fi ni maanaam mandite gi war naa rees léegi nag ñu jël sëriñ bi dund ko xam lan la ñu indil ñu jël loolu dund ko waaye mooy tax ñu mën koo wan waa àdduna mooy tax ñu mën koo jaay moo tax suñ ci daana wax ne bu leen ma jaayee fu may lambe bu leen ma jaayee nu may lambe ku ngeen dégg ne bëgg na rasul sunu borom bu ngeen ko waxee li ma yàlla jaral mu bëgg ma ku ngeen dégg ne bëgg na rasulullahi su ngeen ko waxee li ma rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jaral mu bëgg ma ku ngeen dégg ne bëgg na alxuraan su ngeen ko waxee li ma alxuraan jaral mu bëgg ma kon gi war mandite naa rees ñu jublu sëriñ bi yittewoo mbiram waaye yittewoo dund ko yittewoo it wane ko ci àdduna sépp xam ne luñ mën a wane la luñ mën a dund la luñ mën a jëmmal la ba ñëpp mën koo jariñoo waaw xaal wala yëg-yëg wala yuñ deme neexut a wane loolu lu nit di mos la waaye nag sëñ bi am na loo xam ne ñëpp mën nañ cee jariñu ndax mooy njariñul mbindeef yi nun ñi yàlla boole moom nag ñoo fexe war a fexe nag ba dund ko dund ko ci xam-xam boole ko pas-pas bi ñu amoon bi bi nga xam ne moom lañ am ci moom pas-pas bu wér bu tegu ci xam-xam bu leer nañ bu dëggu bu rafet boo xam ne danañ mën a wane nag ne Sëñ Tuubaa mooy e, e, njariñul mbindeef yi loolu noonu noo ko noo ko noo ko waral suñu naa law alima naasu maa hunaa la baadaru bu nit ñi xamoon li nekk fi man gis nga buñ xamoon li nekk fi man dañuy daw jëkkante si ñun nag am responsabilité xam loolu dund ko xamal ko waa àdduna ba jariñ leen ci sëriñ bi bunt bii sëñ Muntaxa tijji nag bunt booba la bunt boobu la bunt boobu la sëñ Muntaxa tijji te jàpp naa ne buñ demee ba ci kanam dinañ xam ne eh, sëñ waa waajal na lii lépp waajal na ko ndax gàgg yëpp ci moom lay gàggantiku ko sikk yëpp ci moom lay leere lëndëm yëpp ci moom lay wuññi ko wa bi tawaalifiya anwaaran tanuur saatiatan bi xurmati nuuril munir wa bi tawaalifi anir xuluuba man yaltamisuuna al fi kulli zaman yooyu yëpp li mu tegtale nag mooy lépp ci moom la ci moom leere wa bi tawaalifi li wan zulama loolu yooyu yëpp wax na ko <laughs> kon jot na sëkk ñu ñu dund sëriñ bi ci anamu xam-xam ba lu lëndëmoon leer lu lëndëmoon leer nañ te loolu eh, ci yoon wi rek la mën a amee sëñ Muntaxa na yoon yàlla nañ ko ci wuyu ci pastéef bi mu nu woowee yàlla nañ ko mën a wuyoo ci pastéef bi mu nu woowee eh, ba ñu mujj doon jum yi leeral àdduna jum yi leeral àdduna ma daana wax ne aka neexoon ma gis ku yittewoo li ma yor ba ma jox ko ko Ah, kon day mel ne eh, ñu bari dañoo xamut li sëñ bi yor lim lim yittewoo jox jox mbindeef njariñ lim yittewoo jariñ mbindeef ñu bari dañ koo xamut eh, loolu nag buñ ko xamloo ji woon faneen it sëñ Tuubaa moo moom kenn mën koo xamloo faneen maanaam sëñ Tuubaa moo ñu mën a jàngal boppam sëriñ bi ci sëriñ bi ci moom lañ ci boppam lañ koy jànge moo tax alhamdulilahi bi lii amee nga xam ne dootuñu jéggaani fenn xam dootuñu jéggaani fenn xam-xam bunt la boo xam ne daa tijjiwaale bunt yu baree baree baree bare bëri daa tijjiwaale bunt yu baree baree baree bare bëri ndax bari na ñoo xam ne li leen doon yóbbe ak réer ak réere mooy dañuy jànge sëriñ bi dañuy jànge sëriñ bi ci kaneen wala ci ñeneen te fekk sëriñ bi dañ koy jàngee ci boppam Sëriñ Tuubaa dañ koy jàngee ci boppam lii nag bunt la buy leeral loolu bunt la buy ànd ak tawféex yooyu te fekk na eh, sëriñ bi waajal na ko ndax mboolem ñi ciy jàngale mboolem ñi ci nekk ñi ngi ci xam ñëpp borom yi passeef lañ borom yi gis-gis lañ borom yi yëg-yëg lañ ci sëriñ bi eh, te seen xam-xam dara desu ci itam kon nag alhamdulillah lii lépp dañuy gën a dolli kóoliteeg sëriñ bi ne lépp lu agsi rek danañ gën a xam ne sëriñ bi eh, sëñ bi rit yitte ji rëy na te bët ba neex na eh, te te fàggu fàggu téef la fàggu téef la mat na waaw fàggu téef la mat na dara des ci kon yàlla na suñu borom defal tawféex Eh, ba ba ba ba suñ njiite bañ dara bañ cee des suñ suñ suñ suñ pàgguteef dara bañ cee des maa ngi jégalu bu baax a baax ci guddal gi te li may wax <laughs> daamel ne eh, xamu nu ma ko mën a waxee rek ndax yéene ji waaye yàlla nu suñ borom doole defal tawféex yàggal fii sëñ Abdou Samad ci yéene ju rëy ji ci yitte ju kawe ji ci bëgg sagub sëriñ bi eh, moom itamit tànneef la ci tànneefi sëriñ Tuubaa yi